nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo safoo di ñu seetaan dalal leen jàmm seen émission préférée bi di Sen Show donc ni koy waxee rek dañuy ñëw ci kër yi di leen wéttali waaye tamit di fi amal ay waxtaan yu am solo donc nag El Hadj Mouhamadou Ndiaye Dos a tàmbale ci rubrique actualité di fi sekk waxtaan ak xamante ni seen xam-xam màcc na lool si sujet bu ñuy traité Salma tey tamit ñu nar a ñëw ci beneen sujet bu am solo waaw tey ñu nar a ñëw ci wàllum transport war ñëw ci wàllum parrainage gis naa ko fi nag waaye lu njëkk rek lu ñuy waxtaanee moom mooy transport bi nga xamante ne rek ci réew mi dañu tey bi ci wàllu woowule buubu njaam gi dogagu ca ci noonu nag wax nga ko léegi lépp lu ñu mën a waxtaanee dañuy jël ko xam-xamam màcc ci wàllu wi daal di ko fi dalal tey ganu àllaaji di wuyoo ci turu Abdou Mbaye di wuyoo ci turu ki nga xamante ne rek moom mooy euh, Mboodu mbay mooy suñu Abdou Abdou Ndaw Abdou Ndaw donc Modou Mbaye mooy suñu invité ci deuxième partie bi mu yoo ci Abdou Ndaw tay nak mm-hmm. loolu lañuy ñuy ci walum euh, transport bi au Sénégal mm-hmm. waye buñ ci paree ba tey rek euh, Modou Mbaye nima ko waxé mom dina fi ñëw mom mu ngi mm-hmm. bokk APR euh, bàyyeekoo ci Parcelles Assainies moom nag fi ñuy waxtaanee moom moom mooy wàllum parrainage bi nga xamantene dafa melni dal dañ cee gis walum corruption ci réew mi ndax ñu ngi dégg né dañuy fay nit ñi ñuy pour ñu signer ak yoy dal xamna ci nonu tey la ko allah ji fas yéene waxtaanee ku ci mel ne nag Abdou Ndaw ak Modou Mbaye yëpp ñu di leen dalal jàmm ci plateau seen show allah ji nag bu paree dina jox euh, Bintu Kan mhm. Bintu Kan di ñëw ci wàllum santé moom it tey euh, Myriam ana lan la fas yéene waxtaanee. waaw euh, Salma ni nga ko waxee rek dinañ fi ànd ak ki nga xamante ni mooy bintukan Kan ci wàllum santé moom tamit muy ñëw rek ci ay conseils yoo xamante ni dina am solo bu baax a baax donc tey nag muy waxtaan diabète de type donc nag lan mooy li xamante ni rek da koy daal di yokk donc Bintu dañu xamal ne boisson gazeuse yi baaxu ci benn yoon gën a ñëw ak ñun rek ci lan mooy diabète de type 2 ndax nag Salma ñu bëri ah, dañ koy umpale donc di def ah, kii bi ak li nga xamante ni rek mooy diabète de type 1 bi parce que kanam itam ñu gën ci ànd ak Bintu Kan mu gën ñu ciy àndil ay leeral waaye dañuy daal di tëj rek ak ki nga xamante ni mooy Eva Nene mm-hmm. fekk ko ba ci France rek moom itamit Salma mën nañu proposé waat beneen sujet bu am solo waaw comme euh, Myriam ni nga ko waxee Eva heure bu ñëwee rek li muy indi dafay nekk loo xamante ni am na solo mais solo gi yëpp dafay nekk ci suñu bien-être nekk ci suñu wér gu yaram Eva avec ses postures postures yi nag bu ñëwee dina indi les indications bu

tëjee waaye ginnaaw ba heure tijji émission bu neex bi ci heure bu baax bi moom moo jot lu ci njëkk rek dañ ci ànd ak Alaaji Njaay Doos mu daal di yaatal waxtaan yi nee naa leen tey wàllum transport bi dem beeg dikk bi ci biir réew bu Sénégal moom lay waxtaanee léegi lay doon. Abdou ñu koy dalal jàmm ci plateau seen show Alaaji Kaddu Gango. jaajëf ñu ngi lay gërëm Salma di nuyu Myriam di nuyu téléspectateur yu la chaîne leader euh, seen euh, TV. Euh, sëñ bi Ndaw maa ngi lay fay El Hadj Ndiaye Dos voilà sans plus tarder ngir ñu mën a xuus ci waxtaan wi dañuy dem ànd ak euh, waa régie ci reportage bi Pape Mante Mbuub def ndax wa AFTU ñi nga xamanteni ñom ñoy yëngu euh, ci walu euh, transport inter bon transport interurbain wala transport intercommunal amna ci ay jafé jafé yo xamanteni amna ci seen biir ba tax ñom ñu jàpp ne doxalin wi seen e, kilifa di manam transporteur yi doxalé ak ñom dontul doxalin wi gën ngir am ci ay léral gën ci gindiku dañ ci and ak reportage bu Pape Mante Mbuub ak xol bu jeex la liggéeykatu Aptu yi di ñaawloo jafe-jafe yi ñuy dund si seen bërëbu liggéeykaay boobu lee ñoom ñi la di xam ne ne fukki at ak ñett ngi nii ñu siy liggéey te kenn si ñoom amul contrat di di utiliser lu tolloog 600 personnes ba pare teg leen ci mal ay conditions yoo xamante ne kenn xamul nu mel 6000 personnes yoo xamante ne seen condition kenn xamul nu mel amoo foo ko jooyee amul dara treize ans ku ko liggéey yem ci benn salaire amul fenn ci Sénégal amul fenn ci àdduna ensuite suñu nekkin ci biir garage ñun ñu ngi fii ñu ngi fi sànni àll boo xamante ne amul douche amul toilette amul fuñuy jappé, amul fuñuy ñuy amul fu tok, amul kenn ko fi amul sécurité fi kenn xamul nu mel. ci waxtu wi ñu ci bari dañ leen menacer gannaaw yëngu-yëngu yuy amal waye ñuy xam le ne duñ ko bayyi benn yoon di dinañ ci dem nag ba jeex. y même pas 3 jours 4 jours génn nañ def benn sortie wax ci condition de travail yu métti yi ñu nekkee ah jaruma fi ñëwaat ndax sama collègue bi ñëw na ci. Ah ñu ñu paré ci lool direction bi au lieu mu woo autour du table ñu waxtaan jéem a lijjanti problème bi

gox bi oto du dem oto du dikk yile kat di ñaawlu tamit doxalinu yenn syndicat yi ñu seetlu ne nekkaluñ fi benn yoon transporteur yi lu dul seen intérêt personnel rek la ñuy carte waaw alaaji euh, ñu ngi noonu nag ñu doon euh, fësal li nga xamante ne mooy seen métit ci noonu nag la ñuy euh, taajee rek suñu waxtaan jëmale ci wàllum transport bi. waaw da ni transporteurs yi seen njariñu bopp la ñu jiital au détriment njariñu njëriñu liggéeykat yi mu mel ni dañu leen di jariñoo yéen ngeen jàpp ni mbuumum jaam gi donte dañu ne dog na ci feneen waaye ci seen wàllu liggéey yéen lu mburu du dab ci taal saa su ne da ngeen koy da koy daj seen seen seen jafe-jafe. Eh, yokk bi lan la. Ah, avant tout maa ngi nuyu soit kii mouvement bi UTD maa ngi nuyu ñëpp maa ngi présenté man la Abdou Ndaw nekk responsable de la ligne 4. non yow koy présenté nañ la ba pare dugal ci waxtaan yi rek. léegi waxtaan bi ñu bëgg waxtaan mooy depuis 2005 ba 2018 ñu ngi liggéey AFTU pendant 13 ans sans contrat sans embauche sans dara si noonu la donc transporteur yi seen propre intérêt la ñu fi nekk boo xoolee depuis 2005 tataay dañ leen ko lebaloon. ñu ngi leen ko lebaloon ba pare mu am ay subventions te boo xoolee tara leen lebal ñun ñoo ko liggéey fay ko ba mu jeex tàkk ñoo ko fay ba mu jeex tàkk mais amuñu ci amul benn avancement pendant treize ans salaire yi yokkuwul y a rien. Mhm. donc loolu lañ bëgg a dénoncer moo tax ñoo tax wax mais mais recrutement bi naka la naka la demee njëkk dañ di jël ci ay contrat à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée wala amul contrat. musul am contrat. ah bon 2005 bi tataay di wàcc lañu ñuy recruter ay nit woo ay nit jël seen i tur bind leen envoyé leen ñu dem jëri ñu dem fële.

duñ leen fay weer journalier lañ leen di fay. ah bon journalier ay journée 2000 3000 francs. mais mais mais kon formation bi ñu leen wax naan defal nañu leen ko. parce que dañu ni chauffeur Tata yi ñoom ak chauffeur njaga Ndiaga Ndiaye yeeg chauffeur Super yi euh, ñoom ñoom ñoo yam euh, nañ ma balan ah, xamadi gi nekk ci ñëlé def lu leen neex sas biñu leen sas moo nekk ci chauffeur Tata yi et pourtant am na ñu koy bañ di wax ni yéen def ngeen formation kon bu ñu déggee dafa mel ni formation boobee ay wax la nii rek mais dara amu ci. non c'est vrai au début amoon na formation. bi ñu doo commencé am serveurs yi ils ont été formés mais bi ñu demee ba si benn benn instant si formation boobu moo amatul parce que transporteurs yi dañuy jël seen i jarbaat seen i doom seen i mbokk li ñuy jël leen jox oto yi ñu def n'importe quoi mais commencement yi amoon na formation. Hmm. mais léegi formation amatul. xanaa amul suivi. amul benn suivi. kayit de santé amul contrôle dara. y rien. Mmh. y a rien. kon kon léegi diggante transporteur bi ak ki nga chauffeur bi ak euh, receveur bi nakala la naka kan moy contrôler kan kon euh, nekul né xaalis bi dañ koy jël vers ko ci ben compte euh ticket yi dañ koy jël vers ko fenn kon dal lepp day nekk sen diggante yeen ak transporteur bi wa af ci dañ ci génn wala.

Mhm. amul dara lu ci changé ci forme bi rek moo changé mais fond bi pratiquement lépp benn la. dara changé wul parce que amul mesure d' accompagnement. parce que bi ñu leen jox tataay dafa amoon benn cahier de woon pour ñu embaucher nit ñi di leen liggéeyloo huit heures de temps di leen fay salaire bu baax di leen verser les cotisations que ça soit l'IPRES et la caisse de sécurité sociale ak amul lan luñ ci respecté respecté wuñ ci dara IPM sax amoo ko yaa ti amoo dara. ba li ma bëgg a expliquer nii ba si réunion bi mu jënd bi passé kii point de presse personne bi y a eu quinze personnes personnes yoo xam te ni ils ont reçu des demandes d'explication d'autres des des menaces de licenciement. demande d'explication yi par rapport ak lan. par rapport à la captance parce que captance naa ci leeral dara quoi parce que ñun xamuñu captance Aftu lañ xam te gouvernement bi Aftu la xam te oto bi fa wàcc aussi tur Aftu la wàccee donc biñu demee ba ci biir ñi nga xam te ay anciens lañ ils ont eu des problèmes avec les anciens parce que ancienneté dafa bëri parce que pendant nit 13 ans mu liggéey ak yow mosoo ko versé IPRES du allocation familiale du dara comprendre nga ancienneté bi ñëw donc ñooñu dañ leen a xoj dañuy bëgg a dégager si à tout prix mm-hmm. donc man si ñooñu laa bokk donc bu ñu demee ba nga xam te ne sonal nañ leen ñu créé Cap Trans mooy les transporteurs yi nga xam te ils ont toujours eu des contentieux avec leurs employés ils ont créé la Cap Trans Cap Trans transporteur moko dirigé il s'appelle Patapuy c'est le coordinateur de la captrance ta captrance aussi bo fu duggé ay doom transporteur moko nek seni jarbat ak seni seut ñoy liggé ci auto yi ñom ñoy liggé captrance sen direction créé mm-hmm. il perçoit des salaires vraiment exorbitants ay 200 300 400 000 il par, mois mm-hmm. nous les travailleurs, nous avons fait pendant 13 ans, 4 ans, 3 ans ñun du fay dara. mais mais dans tout ça Afti, bi nga xamante ni moom signé woon protocole bi moom moo gouvernement du Sénégal renouvellement parc automobile bi bu amee waa waa. actuellement fi may wax ñoom ñun sommes au tribunal. mais ban ban type de contrat nga am contre amuñu on a on n'a pas de contrat. wax mais boo amul contrat c'est cela veut dire que ni dans l'illégalité ngeen di exercer est-ce qu'il y que yéen tamit quelque part euh, normal ngeen. non liggéey liggéey boo xamante amul. contrat amul dara eh, non non non non mais. parce que normal buy au moins dina am benn type de contrat boo xamante ni day xam ni euh, contrat prestataire de service nga wala euh, stagiaire nga wala mm-hmm. contrat à durée déterminée ou bien contrat à durée indéterminée la. Mm-hmm. lu ci nekk dafa am ay type de contrat yoo xamante ni nit ki nit ki moom la war a seq diggante ak

loolu lañ doon liggéey bu weer ñu fay la nga dem. mais est ce que war leen njëkk a xeex loolu. parce que ku amul contrat moom IPRES. IPRES xamu la. non si xeex xamu tudd caisse de sécurité sociale xamu la. Mhm. Euh, inspection du travail sax euh, bu fekkente ne amuloo bulletin lu confirmer que ni yow mii foofu ngay liggéey lan mooy confirmer li yéen. non liggéey confirmer am na benn carnet bu ngeen la boo xam te ni peut être. mooy benn genre carnet boo xam te ba non carnet. carnet boo xam ne ñoom moom mooy seen carnet de salaire te banque bi transporteur yi ñoom ñoo ko moom ils l'ont créé eux-mêmes

19 ans ou 20 ans lol, rek moy ñew le même même même chose lañuy lañuy la ñuy la dégg. cest à li ñu waroon jappalé au juste moy ñu jàppalewul mooy les syndicalistes parce que bo xolé majeur syndicalistes yépp léegi ay transporteurs lañ. ah bon transporteurs yi nañ leen ku ne yaa ngi say auto transporteurs yi fi gis yi bari ay transporteurs lañ. ku ne ah yaa ngi donc ki la ko demande bu démé pour défendre légui lan mo war a doon taxawaayu état bi ci 30 secondes. pour ah, jappalé li war a taxaw état bi moy actuellement ni menace yu ñu def ni mu tegu suuf. te ñu réglar ñu dans les plus brefs délais. mais mais menace yi bu ñu ko exécuté. bu ko exécuté nañ def ñëpp def nañ ko def dinañ kaw tali bi te bu jaree oto yi musul gaare dinañ ko gaare. peuple kon transporteur yi bon dama ko commencé ci Jim ndjay ba ci ñeneen ñi nek ci kurel bu bes gi nga xamante mom ngeen taxaw gaay joxagn nañu leen donc nak euh, yeen seen wàllu bop yeen tam bu leen nexé mën ngeen ñew indi ci ay ay ay leeral euh, parce que sen TV bu ñu ñaxanaay euh, lañuy teudé déglu lañu leen ñom ñu wax yeen transport yi itam da ngeen ñew parce que li ñeen di jiiñ di wax ni yeen ay hors la loi ngeen dafa dafa bari torop ñu ngi lay gëreem di la sante mmh. maa ma leen sante leen gëreem yéen tamit Allah alaaji ñu di ko remercier bu baax dégg nañ sax ci élément bi am ñu ne bañu ñu ci bay yeneen Bassirou Faye am maanaam bañuñu si ba ñàkk ci seen bakkan donc ñu ñaan rek ñu daal di lijjanti boobu le problème ci nu gën a gaawee Mamadou Gueye dinañ ko dalal léegi ci kanam ginnaaw page pub bi amul fu ñuy jàppee amul